كريم عليم عارم يزيد شكري بأقلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته man Moustapha Niang dëkk fii ci Ndok Carrière maa leen di nuyu di leen jotale nuyoo waa dëkk bépp ci njiital kilifa yi toog nii muy chef de village ak mbooleem kilifa yi toog fii ñu ngi leen di jaar yéen ñëpp di leen dalal jàmm fii ci seen fii Ndok Carrière Ndokkareer na dëkk bu am barke la ndax buñ buñ ko buñ mënee wax ne buñ mënee wax ne xayru jumaay Tuubaa nga xam ne mooy symbole bi gën a rëy ci yoonu murit xayru njëkk yi ba ci wuñ wu mujj wi fii lañ ko jëlee boo ko waxee sax ñu bëri mën nañ ko kii waaye kàmb yaa ngi fii motu sax 500 mètres ah ba pare. bëri na ñu takk ay grade yoo xam ne ci yoonu murit yoo xam ne ndokk gi lañ ko takkee yu bëree bëri muy seex yëpp si lañ daan noor kon ndokk dëkk bu dëkk barke la comme bu ngeen bàyyee seen yitte ñëw fii nag ñun amuñ seen fay ñu ngi leen di dalal jàmm di leen masawu coono ci ñëw gi dëkk la boo xam ne nii mboolem kilifa yi mooy kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñoom ñëpp ku ci ne bi nga fi jaaree li nga doon ñaan yàlla may na la waaw benn ci yoonu murit mooy jumaa ji lépp fi la sottee bu dee ci àdduna kii nekk njiitu réew tey wax na ba ñëw fii keroog ñun nii lañ nii lañ def dalal ko wax ko wax ko suñuy soxla waaw kon it te moom it yàlla may na ko lam lam doon bëgg ndax réew mi la doon laaj suñu borom mayoon na ko ko kon it yéen it li nga tànk yi nga xam ne moom ngeen dox suñu boroom yàlla na leen ci yàlla na leen ci defal lu kawe seen njort. Abdoulaye euh, Sylla ak waa Ecotra ñun xam nañ leen. yu ñu xëy rek dégg Ecotra dégg Abdoulaye Sylla def nañ ci ay recherche dalal nañ ci aussi ñoo xam ne ñu ñu xam Abdoulaye Sylla lañ par exemple mën naa ci cité Abdoulaye Naar xam naa war ngeen ko xam dañuy déggante di partager ci lu bëri muy wax yu bari yoo xam ne activité yoo xam ne euh, euh, Abdoulaye Sylla mi ngi koy def ak waa Ecotra bi ñu jum màggal gi d'ailleurs sànq ci ginnaaw maa ngi koy wax maa ngi koy wan chef de village ay image yoo xam ni siñ Cheikh Abdou Latif siñ Abdou Karim kilifa yu bëri yoo xam ni seere nañ jox nañ ko bopp kon ñun bu leen joxee bopp ñun asamaan ñun kon ñun mën ngeen a jàpp ne bu fekkee li ngeen li ngeen di wut ci ndokk gi nii mën ngeen a xalaat mën ngeen a am yaakaar ne da ngeen koy am bu si bu soobee yàlla dinañ ci ànd ak yéen ci bépp fànn bëgguñ nag naan dañ lii lañ ñuy defal lee lañ ñuy defal d'ailleurs réew mi ngeen bëgg loolu lañ leen di ñaanal lépp lu ngeen bëgg nañ ci ànd ak yéen parce que nag bu ñu leen defalee dañuy defal suñu bopp ndax fii moom koo jàppale la daf lay jàppale bu fekkee gor la ñun nag loolu lañ bëgg euh, sàmmonte ak yéen di gërëm bu baax waa dëkk bi yëpp ñi nga xam ne ñëw nañ ci jotaay bi yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen yóbbante aussi nuyoo ci kilifa gi bu baax a baax di Abdoulaye Sylla di ko wax ne waa ndokk moom na jàpp ne fii moom jàmm rek la fiy dégg bu neex yàlla. soxna May ñaŋ maa ngi leen di nuyu di leen masaw ci coono yi xam ne ndokk gi ngeen ñëw ñëw ngeen ci dëkk bu baax dëkk bu lislaam dëkk bu am yaakaar te du tas yaakaar mukk te li ngeen def te barabu Sëñ Fallou bee kenn ku ne dégg na ko ku ne gis ko ku ne teg na yeneen keroog ko suñu Abdou Karim di wax maa ngi toog di ko seetaan nag dara ump ma li ngeen bëgg yàlla leen ko suñu borom defal ci barkeb Serigne Fallou Mbacké jëmm ji nag dafa nekk sama gan wàll ñuy ànd maag moom guddeeg bëccëg lépp lu mu nekk ma xam ko lépp lu ma nekk mu xam ko mébét naa jumaa ji ci ku ñuy wax Cheikh baara pour naar yi boobaa léegi ñoom dégguma leen ba yàlla def maanaam lii taxaw. ma dem ci Sylla ma ne ko dëgg danga ma woo nga ne ma nañu jàppale Cheikh Ablaye ma ne jàppale Cheikh Ablaye dinaa ci am dinaa ci sawar ndax jamono ji moo nekk kër Sëñ Sidi Moxtaar yore ñuy dal daayira yi am na at bu ñuy yóbbu ujaaj yi mag boobu ñu ngi tàmbale jumaa yi Masalik keroog fekk nañu fa ay boori deux heures la ñëw indi fa lu mot ñaari milliards jox ko sëñ Sidi Moxtaar mu tàmbalee def ko ci jumaa ji keroog sëñ Sidi Moxtaar dafa ne lu ma doon ñaan sëñ Baar ak sëñ Tuubaa defal na ma ko ndax damaa waxoon na ma jox ku am wërsëg ku ma jàppale ci liggéey bi kon kii sëñ Tuubaa ma koy indil ñuy dox ba Seex Sidi Moxtaar tàmbale di yeesluwaat jumaa yi Tuubaa di yokkaat ñaari solar yi mu def nu mu defoon te xam ngeen ne diiru fukki at màgg gi saa yu jubsee dina jël lu ma téeméeri benn xool fu xam ne am na yaakaar ne nit ñi dinañ fa siyaar ji mu koy sëkk pour nit ñi bañ a xuus waaye nag jàmbaar la waaye nag daanu dafa dajagul fépp muy ñaan yàlla daanu boobu mu daj fépp ndax xam na ne Touba ak lu ko wër lu koy liggéey am na loo xam ne su ko laalee état da koy wax maa ko war a liggéey loolu moo tax mu jóg ñëw ci yéen ñëw ci waa kër sëñ Touba pour ñu jàppale ko mu yor réew mi ndax dafay liggéeyal sëñ Touba ndax mënoon na lépp lu muy liggéey nit ñi topp ko di ko jël ñuy wax ablaay moo def lii mais lépp lu muy liggéey soo gëstuwul doo xam ko koy liggéey buggul ndax nit ne lii Ablaye moo ko def ak aide yu muy def màggal Touba ba ci gàmmu gi muy xilaafa yeneen yi teejaan yeeg ñëpp mu ngi leen koy def moo ngi leen koy defal kon ñun su ñëwee fii ndokk fii. tàmbali fi lii dañoo bëgg lu ñu tàmbali suñ borom dimbali ñu ba mu àgg ak jàmm ndax fii lañ doon tàmbalee liggéey sëñ Touba ci jumaa ji ba jumaa ji àgg ndax sëñ Touba dafa noonu suñ mënub soi fexeel ba ma dem Touba nag ma fexeel ba sama jumaa ji taxaw fii lañ ko tàmbalee fii lañ ko àggalee kon suñ tàmbalee fii mbir mii am na yaakaar suñ boroom dina àggale suñuy jéego ndax ñun sëñ Sidi Mokhtar fexe na ba suñ bët fees dara feesul suñu bët fu ne sëñ Sidi Moxtaar am na lu ñuy waxoon nee na ñu defal leen jëmm yi ba ku leen gis bugg laxasoog yéen waaye na ngeen def jikko yi defar jikko yi ba ku laxasoog yéen du leen bàyyi ñu ngi sant yàlla di sant bu baax a baax. tey dañoo daje ki nga xamee ne mooy directeur bi nga xamee ne mooy eh, entreprise su eh, Ablaye Sylla boobu ñu koy waxee Ecotra muy Assane Sylla dafa wax lu am solo ci réew moo xamee ne daanaka juróom ñaar fukk ak juróom ñëpp ay ndaw lan te ñi ci ëpp ci ndaw ñooñu amagun juróom euh, fukk ak juróom ñeenti at kon réew moomu réew la moo xamee ne ku ko ku ko jàppale ci gone yu ndaw yi mën naa dem te it boo xoolee ne état yi fi nekk daanaka defuñu dara bu amoon maanaam fukk yu mel ni Ablaye Sylla rek yu bari dana fi jeex ndax koo xamee ne yow amoo leen loo xamee ne état mi ngi la koy jàppale te yow am keree nga sax yoo xamee ne yaa ngi ciy xëyloo li ñuy wax ñaari junniy nit ci réew mi xam nga bu la bu boo amoon ñeneen ñoo xamee ne ñëw nañ dimbale la danga mën a dem ak ñoom waaw wax dëgg fa yàlla président Ablaye Sylla moom mébétam ci dëgg ci réew mii muy ndokk ak muy Touba ak région de Diourbel incha allah développement moom ku ne xam na ne président Ablaye Sylla ci lay dox suba ba ngoon lu développé réew mi bu ngeen xoolee màggal Touba gi nga xamee ne day am yoo xamee ne da koy déployer yu bëree bari ñoo xamee ne ñooy ñëw ay camions yu bari ak ay pocolin ak ay gradeurs yoo xamee ne waxuma la lim ciy financé rek mais ay gasoil beeg yooyu carburant bi ciy dem rek ak nit ñi nga xamee ne ñoo koy yore kenn xamul ñaata million la ciy dépassé te chaque année mi ngi koy def ci assainissement ak yëpp. di ñëw rek di wax ci kàddu ki nga xam ne moo ñu fi yabal muy. Euh, Serigne Saliou silla direk rakk ci euh, Abdoulaye Sylla président donc tey ñëw nañ fii comme li ngeen ko waxee dëkk boo xam ne dëkku ñaan la ndax euh, li ngeen ci wax yëpp dégg nañ ko donc tey ñun dañuy wax wax dañuy ñëw rek di leen wax kan mooy Abdoulaye Sylla ak Abdoulaye Sylla moom lan lan namm ci réew mi ginnaaw Abdoulaye Sylla dañoo gis muy jëf-jëf ju rëy ci biir dëkk bi ak ci yeneen raison yi nga xam ne tey ñoo nekk ci biir Sénégal donc kon bu ñu gisee benn village boo xam ne tey mi ngi jege Touba lool bëri ay bëgg-bëgg loolu yaakaar naa Abdoulaye Sylla dina ci taxaw ñi fi jaar ñëpp wax nañ ci barabu Sëñ bi ni mu ko def donc ginnaaw moom moo defar barabu Sëñ boobu ci ay ay centaine de million donc kon jumaa ji ngeen xam ne yéen a ngi koy wax boobu tey yaakaar naa loolu moom euh, dina ci taxawul bu baax a baax a baax waaw incha allah di wax ne daal Abdoulaye Sylla nekk na koo xam ne tey. Euh, nit koo xam ne ku social la ci ndax social mooy lan tey moom yoragut l'appareil de l'État bu ñëwee l'appareil de l'État mooy jotagut euh, gouvernement bi yoragut euh, réew mi te mi ngi def ay euh, ay ndimbal yoo xam ne yaakaar naa ñëpp ñu ngi koy gis bu màggal Tuubaa ñëwee li muy def ci ci ci yoon yi nga xam ne tey pour que gan yi bu ñëwee mën a am fu ñu jaar waaye yëmul foofu muy jënd ay ay xewal di ko jox pour gan yi bu ñëwee am luñ mën a xewloo ba dem Euh, Abdoulaye Sylla mu nekk koo xam ne tey comme li ma waxoon sociale bi donc social boobu ci mi ci loolu lay dox ba nga xam ne tey bëri na loo xam ne tey moo ko def ci biir dëkk bi mais mosoo gis nga gis Abdoulaye Sylla ñu ne mooy wax lii na maa ko def ñun ñi nga xam ne tey ñooy entourage am ñun ñooy taxaw naan Abdoulaye Sylla moo def lii Abdoulaye moo def lii te nit bu defee lu baax nga ne moo jëf lii yaa xam naa loolu aayut donc kon ñun foofu la nekk di leen wax rek ngeen jàppale Abdoulaye Sylla président Abdoulaye Sylla ndax kat boo amee candidat boo xam ne Touba gii la dëkk soriwu la donc li ngay dem di euh, di dem ci yeneen région di jàppale keneen te moom mu jege la lool nga jàppale ko yaakaar naa day ëpp solo ko lool ndax euh, Abdoulaye Sylla bu ngeen ko jàppale yaakaar naa seen bopp ngeen jàppale ndax yéen gis ngeen li muy def ci dëkk bi nekkatul loo xam ne tey dañ koy dañ koy wax naan naan lii non loo xam ne tey dañ ciy teg bët la ne lii moo ko def fii la ko def fii la ko def ñu bëri expliqué nañ ci mbaar mi nga xam ne moo nekk biir ya boo duggee en face da koy jàkkaarloo ak moom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey mi ngi koy def ci dëkk bi donc kon kooku ah, ku ko jàppale sa bopp nga jàppale ñun nag Sénégal yàlla des fois dañuy tàccu mais duñ duñ duñu réagir mais dañuy bàyyi ba loolu jàll ñu dog di toppaat di naan euh, comme comme tey euh, bàyyi ba ba waaw jaan waaw comme waaw waaw kay donc daal ñun daal ñu ngi leen di tàll suñu loxo pour que ngeen jàppale ñu. ndax bu ñu jàppalee rek seen bopp ngeen jàppale te Ablaye Sylla lépp loo xam ne rek dig na leen ko incha allah dina ko def. ku ne doomu Touba la ku ne xam na ne docteur Sylla ku ko xamul yaa ngi koy dégg mooy El Hadj Alioune Sylla bi ñuy wax mooy docteur Sylla bu sëñ Saaliwu docteur Sylla bi nga xam ne moom la sëñ Saaliwu daan bokk ci lu mu daan ëpp lu mu daan fajloo ndongoy Xelkoom xañ na ñi jaar Xelkoom wala ñi nga xam ne ñoo ngi dégg dinañ xam kan mooy docteur Sylla kooku moom mooy waajuram bu góor moom moo dox lii lépp ginnaaw yàlla bu ñu agsee fii waaye dafa am benn doomam boo xam ne rakk la ci président Ablaye la mooy Serigne si la moom mooy coordonnateur régional moom lii yëpp ci coordination la ndax euh, bu njëkk euh, ñun fii dafa am lu ñu xamoon mooy politiciens yi ñu daan gis dañ daan gis bu njëkk ab délégation ñu ñëw nii naa affaire léegi nag léegi loolu dañu ko fee bëgg a jëlee ndax ñii ngeen gis ñu toog nii ñun ay ay ay ay ay doomu dëkk bi lañ mën naan mais président Ablaye Sylla li ñuy wax ci ay socialam da cee am loo xam ne nii. gàmmuk ren gii nii nii nii dinaa wax loo xam ne ni xañ na dina naqaree dégg nag waaye ku ko dégg na la jaaxal mooy koo xam ne ni benn nit bu jënd ñaari junni nag yoo xam da koo séddale xañ na ku ko gisul tim dégg nga waaye liñ naan daanu dajul fépp ni ñu ko waxee ba tax na biñ ne waajee bay ñëw am na lu ñu ma wax lu ñu wax seen seex ni ba tax na sànq bi ngeen di wax nii ñun yàlla daa dogal ñun ñi nga xam ne xam nañ ñu dëgg-dëgg ñun ci ñun taskatu xibaar lañ ci loolu la ñuy yëngu ci loolu lañ ñu xamee yàlla dogal nag ñu nekkaat ci biir liggéey bi ci liggéey bi ngeen di wax loolu ci laa ko daati daati eh, yónnee li nga xam mooy message yi jógee fi ba papaam bi nga xam ne moo ko jur moom si jëmmi boppam nee na ma na na nga wax ki nga xam ne moom moo di jëwrin ji wala ñi nga xam ne moom li nga xam ne moom lay barkeeloo dana ma sax na ko wax mu ànd ak seex moom papaam moo wax papaam laay wax de moo wax léegi bokkagul li nga xam ne moom moo war a jógee ci président Abdoulaye la nee na incha allahu rabbi message ba mu ngi ne alterné na sëñ seex mi ñëw ànd ak ki nga xam moom moo di délégué bi wala ku mën a àndal ñëw incha allah papa moom dina ci barkeeloo maanaam fii nga xam ne liggéey fi la toll dina ci yónnee euh, téeméeri junni incha allah altene nag bu ko defee début bi ngeen defar ba pare ngeen jox ñu ko incha allah ñu teg ko ci loxoom ñu jox ko président Abdoulaye Sylla ndax am naa yaakaar ne fii euh, li mu def ci yeneen barab yi am naa yaakaar lii moom xañ na du ñu wax ne sax doyu ko xaw ma nu ko olof yi di waxee waaw nu waaw noonu la waaw comme noonu ñu ko xam naa moom lii moom bi àgg ci moom boo leen gisee mu yabal lii nii moom mbiram du ko bu doon keneen ku xam communication ni muy bu doon dem day bu fekkoon keneen la day yebal ay ay ay télévision woo leen mais du ko def moom na ñëw ñu jëlee ko boo gisee boo gisee bu ñu ko jëlelee bu dañ ko koy defar yónnee ko ko moom mu déglu kàddu yi fi jóge boobaa nag après ci lay doog a réagir mais lii moom incha allah dina ko jot gën ngaa gën gaa gën ngaa gàtt tey incha allah balaa 22h message dina ko jot dina jot li nga xam moo di début moom tam mais papam daal nee na incha allahu rabi altene àndal ak sëñ Seex ma yónnee message nii ma wax papaam loolu la wax léegi nee na altine nga ñëw bu loolu jàllee Sëñ Saalu mi nga xam ne moom mooy coordonné li nga xam moom mooy région bi moom itam muy nit koo xam ne nii engagement yu ñuy jël ndax ñun bëggu wax loo xam ne ëllëg damay dajeeg sama waajee di sëgg wala keneen ñaanu ma yàlla lool su may téléphone ku ma woo dinaa la Sëñ Saalu moom itam mu nekk euh, dëkk bi di liggéey liggéey bu am solo ndax lu ñuy jël engagement tam day leer ndax fii suñuy nawle lañ fi nekkal ak suñuy mbokku taalu bi ndax président Abdoulaye Sylla moom ay jëfam waxul nag di damaa bokk ci tarixa murid wala naan ma wax leen lu doy waar euh, gàmm gi passé yéen a ngi dégg Tiwaawoon bi ñu demee man ak sëñ Saliou ñu yóbbu ñett ñett téeméer nag ak juróom-ñaar fukk bi gi am ku ne ma moom moom fan lay fan lay gàmmoo suba ci ci tariixa bi ma ne ko ah de daa mel ne taalu bi la mu ne ma ah, ko buntu kër gii ñu andi nag yi sax mooy géttu sëñ Maodo li may xam nga ci caméra laay wax géttu sëñ man maak sëñ Saliou ñoo fa yóbbu ñett téeméer nag ak juróom-ñaar fukk lépp Ablaye Sylla moo moo ko def te ka la muy def ci loolu nag yaakaar naa ay mbokkam moom taxul di wax te yéen ci ngeen bokk waaw ba tax na daal lii ñu leen di wax moom engagement bu ñu jël la ci ay image di ko wax moom loolu dina ko def bu soobee yàlla nag lii liggéey bi moom xam naa dina ko ànd ak yéen waaye nag dafa am lu sama mbokk mi wax sànq ndax ki nga xam ne mu ngi liggéeyloo ñaari junniy nit te jotagul li nga xam ne moom moo di appareil de l'État kon kooku bu ko yàlla mu jot ko nu muy def ah ko defee ndaw ñi suma mbokk ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom itam nañ xam ne président Abdoulaye Sylla dina leen bàyyi xel incha allah li sëñ Malick miy wax dina ko bàyyi xel bu dee suma yaay yi nga xam ne fii ku ne xam na ne projet la lii pourquoi li nga xam ne moom la bayee bàyyee fi daanaka nañ ma baal Touba lépp li ñuy jëfandikoo ndokk lay jóge ci wàllu salaat ak yooyu màggal gu fi mën a xew nag sëriñ bu fi xewle bu waa ndokk génnewul moom da ngay daal di xool no def nañ ko waxte dee kon nag liggéey bi ñun xam nañ li ñuy wax bu baax du lu ñuy làmbatuñ kon daal euh, ni ñu leen ko waxee ñi ngi Touba di jéeglu baax suma papa ak suma yaay ak suma mag yi di jéeglu ci kàddu waaye daal li ngeen xam ne li wax fii incha allahu rabbi Serigne Saliou Sylla la moom moom mi ngi ñu mi nga xam ne moom ci turam lañ ñëw moo ñu formé ñun ñi ñëpp ba kenn ku nekk ñemee toog fii di wax te lu ñuy jël duñ jël duñ jël engagement pour naan nangam ndax ñu dañoo ñaan yàlla ëllëg si biir kuñ ci dajee ak yow buñ boo sëggee ñu sigg boo sëggee ñu siggi ndax ñu duñ la wax loo xam ne dañuy taal oto dem dootuñu jot ñun ci dëkk bi lañ dëkk sama waajee xam na fi ma dëkk ak keneen ak keneen ak keneen kon ba loolu moo loolu daal lañ leen baakaar naa kii su waxee di ko xam ndax xam naa ne ku ne Daaru Raxmaan ak ndokk benn la te ci njabootu sëñ Abdou Mbaye Keere wala ñooñu ñu ko jegale kon xam naa ne ñàkkul na ay taalibeem ñi ngi fi kon ba tax na kon daal xam naa foofu la ñuy daal di gàttale waaye li ma leen wax ma koy baamtuwaat mooy alin si la wax na ne altine na seex mii ñëw ànd ak ki nga xam ne moom moo di délégué bi mooy suma paapa bi ñëw moom mu barkeeloo loolu moom paa bi moom moo koy barkeeloo sëñ Saliou yow itam sa wàllu bopp waxuma président mais jëmmi yow sëñ Saliou sa bopp yow jumaa ji am nga fi ndax mbir mi ñëpp ñëpp la géej la waaw ku nekk mën nga cee barkeelu waaye président moom xam naa ne moom bu gisee lii moom dina ci jàpp moom ndax social la waaye nag ñun tam nañ ko jàppale ndax nekkagul kaani xam nga la moo tax nekkul candidat il fallait que dañuy def li nga xam ne mooy wàllu prénance daan ah ñun kat mbër bii bëgg nañ mu bokk xam nga bëgg nañ mu bokk ak bokk na bokkul nañ dégg baax bëgg nañ mu bokk ak bokk na bokkagul il mu matal li nga xam ne moom la bëgg doo ko bokk ndax moom bu yàlla dogalee lii nga xamante ni moom lay wut matul tim bu dee dimanche wala muy samedi dimanche altine bu ñu xëyee ñun ci bureau yi la xëy daal di continuer activités yi ñu daan def ndax jotee gars yi laaj nañ ba wax jotee wax nañu askan bi loolu nag lañ gis ne loolu daal moo fi nekk waaye daal luñ ñuy jàppalee moom jamono jii ñuy jàppale ñun tam nag ndax olof yi dañuy wax loxoy loxoy kajoor daf dee weesaloo waaw kon nag noonu la nañ ñu jàppale ñun tam ci li nga bu altina chef du village dana xëy jëli téeméeri junni benn politique see musu ko wax muy dëgg bu altinaa bu téeméer ñëwee talaata ngeen ñëw dugg ci dëkk bi ñu paree ne leen ngeen mottali jumaa ji wax ji jeex. tey dañ fi am taxawaay bu doy waar muy ñaari taxawaay yoo xamante ni di taxawaayu sëñ naa Aliou la muy waajur Serigne Saliou ak taxawaayu Serigne Saliou Sylla mi nga xam ne mooy coordonné coordonné coordonnateur régional bu région de Diourbel kon yaakaar naa tey dañ fiy saf sàpp daal ci taxawaay bi nga xam ne liñ bëggoon wax liñ liñ matoon a wax yëpp ñi ñu àndal wax nañ ko ku su mel sëñ Cheikh mi nii ak sëñ Malick ak sëñ maam Thierno leeral na lépp li nga xam ne moo moo gën a mat a leeral nag ci mbir mi mooy lii di parrainage yi nga xam ne dafa am ay ay ay soppiku yu jàmm ndaxte kii bëgg naa am na yéene bokk ki am yéene bokk na ak ki ne bokk nga du benn ki am yéene moom yéeneem ñun ñoo koy ñun ñoo koy motal li nga ko mën a motalee nag mooy lii te lii dara jiitu ji nag mooy suñu carte te li may wax ne suñu carte d'identité suñu doole. waaw ñun bu ñu xeex amuñu doole ju ñuy xeexak ak amuñu tamit suñu wax mun a xeex ak état kon li nga xam ne mooy suñu doole mooy suñu carte d'identité te ki nga xam ne dafa am yéene bokk ñun ñëpp buñ doon buñ toogee fii ne dañ koy jàppale te jàllul si lii yaakaar loolu ay ay ay kii lay doon maanaam si si làmmeñ lay nekk rek waaye moom du jàll du dem paren du dem ci élection yi kon nag dafa am loo xam ne moo ci ëpp solo muy muy parrainage yi nga xam ne ren ku ne xam ne état ak ak ak caay-caayam moo tax mu def ci ay ndëgg sërëx yoo xam ne ku ko moytuwut ndax bu ngeen bu ngeen xoolee kan ñi nga xam ne ñoo posé candidat dañoo bari moo tax mu def ci benn ndëgg sërëx boo xam ne ku ko ku ko watandikuwut soo moytuwut da ngay da ba ba am leen la laaj nga yegg ñu ñu rejeté ko nga ñu génne sa liste te benn benn liste bu nekk dix dix carte d'identité lay te dix carte bu ci benn juumee rek bu ci benn baaxut benn bu ci nekkee doublon rek yow dañ lay rejeté nga xam ne kon ñoom am nañ benn pièce boo xam ne ñu ngi koy préparer léegi ci loolu nag ci lañu ñu Serigne si la daal di formé ci loolu ba nga xam ne kenn ku nekk si ñi ñun ñii ànd soo gëmm soo tëddoon bu guddi sax ñu yee la ne la remplir ma fichier bi di ko di nga ko remplir ñu baree baree bari dañuy ñëw ñoo xam ne daan nañ bokk ci ñu yor wàllum parrainage ñu ne ñoom kat mën nañoo remplir feuille bi bu ñëwee jox leen ko ñu siy def ay njumte yoo xam ne maam doo doo doo comprendre waaye da nga xam ne état bi daa xam njuñ njaaj yi nga xam ne moom la candidat yi daan jaar. ndax ku ne xam na ne Sénégal gi yëpp koo fi wax parrainage mu ne la dama danga may jaay si li ma li ma li ma jàpp man ak maam Thierno mii mooy ñun bañ commencé ba léegi amul fu ñu mas a dem jënd fa parrainage amul kenn koo xam ne mas nañoo dem ci yow ne la da nga ñu pare na ñu jox la temps ay nit dañ ñuy woo téléphone ñoo xam ne ñi ngi bokk ci yeneeni parti nañu kat am nañu nangami parrainage su ngeen bëgg su ngeen bëggee ñu jaay leen ko bu fekkee ne ku bëggul yomb nga da nga naan ko ayca rek toog fi toog te li may wax ne li ëpp solo ci liggéey nag mooy terrain mooy terrain bi comme ni nga xam ne ñun noonu lañ koy defee di di wàcc ci terrain bi ndax nit ki boo wàccut ci terrain bi mënoo xam jafe-jafe askan wi nit ki bul xool sa intérêt ba lor ñeneen ñun nag dañoo jiital intérêt askan wi ndaxte dafa jot Touba na kanamu Touba soppi ko Touba jot na mu am ay ministre de l'intérieur jot na mu am ay ministre de ministre des finances ministre yëpp maam jot na waa am ko ay directeur général ak ay directeur généraux mais Touba li nga fi mën a wax ne moo fi am mooy ay député député yoo xamante ni koo ci jàppale bam falu bu faloo fàtte na la moom ci boppam lay daal di nekk te li may wax ne salaire u député mënut a defarub koñ waxuma laa ko réew kon nag dafa jot Touba am président boppam ndax président boo xam ne ni Touba la jógee mooy baasam bokk ci élection yi c'est la première fois moom ci li ma li ma li ma fekk nag man ndaxte yaakaar naa yàgguñu ci jamono te te suñuy at tamit bëriwul waaye depuis bañ dalee siifur mbir mi ba léegi loolu ñu ngi koy door a dégg kon nag dafa jot waa tuuba ñu xam ne lii fal ak lii folli Touba la nekk ndax ku bëgg a falu Touba ngay ñëw falo bi ku ñu ku ñu bëgg a folli it Touba lan lay folle bu ngeen xoolee élection yi ci weesu yëpp ku fi am 100 pour Touba yaa gañe kuñ bëgg a folli it Touba lan la folle nga xam ne amut benn politicien boo xam ne ñi mën naa taxaw waat ne maîtrise na Touba loolu. yaakaar naa amul kenn koo xamante ni ñi mën na koo taxaw wax ne Touba moom maîtriser naa ko sama sama sama kii la te politiciens yi bari na lool waaye li muy jëf ci Touba it comme ni ngeen ko waxee du jar ma ci ma ci amul ku ku ñemee taxaw ne jëf naa lu mel noonu ci dëkk bu sell bi kon kooku nag dafa jot ñun ñu taxaw wane na kat waa Touba maanaam ñu am fulaa fi nekk ñu jànga fi nekk ndax Touba li leen a bàkkee mooy élèves yi CM2 yi fa la ñu bàyyi ko foo dem danaan yow xanaa élève CM2 nga te Touba ñu ne am yor seen i diplôme nga fi mais boo yoree sa diplôme def say formation te mënoo liggéey doo am njëriñ te ki nga xamante ne nag dafa am ay projet bu ama am solo boo xam ne daf koo def ci wàllum xëyum ndaw ñi ndax kuy employé plus de mille personnes te jotagoo réew mi yaakaar naa boo jotoon réew mi ba ba gox bu nekk nga samp fa benn yaakaar naa ñàkkum xëy dina jeex te kenn ku nekk su ñun ñii ba ñu suñu wayjur di fayal ñuy jàng fayaluñu ngir buñ màggee di taxawaalu wala ñuy dem di wuti liggéey daa jàpp ne kat ñuy fayal buñ màggee dinañ réussir dinañ am réussite ci suñu jàng moo tax ñu daan sonn ci ñun kon suñu màggee amuluñ leen njariñ mooy tax ñoom duñ sawar ci suñu rakk yi nga xam ne ñoo ñoo toll ci duggeekool ñu dalal leen ndax dana ah njàng de njàngam góor bañ na ko ba jigéen yi nga xam ne dañ leen di fàtte te Touba jigéen Sénégal sax la am réew jigéen da cee am lu da cee da nekk lu am am solo ndax fii njaayum salaat wax naa ko sànq si yoon bi ma leen fiire de màggalu Kéré Mbaye ak màggal Daaru Rahmaan gii dama fiy ñëw di jël si di si di salaat te boo demee ca fa ñuy jaay salaat si ak naana foo laajte danaa na ndokk kon yaakaar naa fi maanaam économique bi am na am na wa lu fiy dox ci wàllum économique loo xam ne buñ leen mayoon doole tuuti maanaam leneen la ñuy wax waaye du ndokk mën naa day weesu fii yëpp ndaxte tali yi ñuy dégg daa jot daa jot mu egg si ndokk formation yi nga xamante ni dañ koy def ngir gën a am xarañ xarañte ci ci ci ci wàllum agriculture dañ ko war a def loolu war naa mën a ci dëkk bi waaye jàpp nañ ne maam képp koo xam ne yaa ngi tuubaa gii maam ñoom nguur gi dafa sofantal Touba maam jàpp nañ ne ñi nekk Touba moom dañoo war a dang-dange rek bu élection ñëwee ñëw nax leen dem kii nax nag mooy ki nga xam ne day ñëw jënd la ba pare wax la lim lay wax dem ñun nag jënduñu kenn naxuñu kenn ndaxte li ñu mën la ñu wax lu ñu mënut duñ ko wax ban kili euh, dafa am meeru mbootaay boo xam ne demoon nañ fa lu yàggu dara maa seen jeexam ñu ànd ban yeggee mu nañu parrainage bi de mën naa leen a lijjanti nangam waaye nangam ngeen may fay ma ne ko yow nan la leer na képp koo xam ne ñëw na ci yow nga jaay ko sa parrainage yi li nga wax bu toogee ci réew mi te defut li askan yu bëgg na nga xam ne yow ci ñuy jaay askan nga bokk te loolu moom ku ne xam na ko képp koo xam ne da ngaa sa carte sa benn carte boobu bul ko xeeb koo ko jaay bu faloo def loo xamante ni bëggut bokkut ak li askan yu bëgg jàppal ne yow ci ñuy jaay réew mi nga bokk kon dañu xool koo xamante ni bu toogee ñun suñu intérêt dafay nekk ndax élection yi bu ñu rawee ñun waa Touba ma xam ne ñàkk nañ ndax dafa jot képp koo xam ne da ngay ñëw nekk damaa bëgg a yuutu njiitum réew mi ñu ne la ba ban programme nga am pour Touba ñii ñëw ñëpp amuñu benn programme Touba. sant nañ leen yéen ñëpp gërëm nañ leen ci seen déplacement yàgg nañoo am ay gan ndax toujours gan a fi ñëw waaye nag su waxee te yàlla dëgg te yàlla tax nag gan gu mel ni yéen moom amaguñ ko waaw gan goo xam ne nee nga bu subaa wala ginnaaw suba bu ngeen ñëw ñu def nangam ah. a amaguñ ko de somme bi ngeen tuddit amaguñ ko. xam ngeen man moom maa ngi seen ginnaaw bu doon benn carte la. na nañ yéene daal lii danañ ko jàpp moom waa toujours bu jógee ñun ñëpp danañ ko danañ ci sol suñu daal. li mag du man du man dong de équipe bi bépp ñu fi ñëpp kenn ku ne da jóg dugg ci dugg ci ci ci koñ yi dugg ci seen kër yi fexe jël dante yi ñëw ñu pare na leen bu soob yàlla fas na yéen ñëpp dañ ci taxaw waxal bi waju sati لمن كان لي بالجود وهو شكور نسوري وتايدي ويسيل الردى من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبير أجل قديما لخير الخلق وهو نسير يديرني الكافي به من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي سواري عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهمسة بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي عما عني تفرقا لمدين الذي عنه المدين خسير